affaire policier yi nga xam ne dañ ciy wax pour policier bi nga xam ne moom moom mbéj waa ji vraiment man bi ma ko seetaanee ci whatsapp sax laa ko gis quoi vraiment mais bi ma ko gisee dama ko ñaawlu quoi waxuma sax euh, mu nekk policier mu ñàkk ko nekk laa yemale mais dóor moo nekkul yoon daal vraiment bi ma gisee tamit loolu dama ko ñaawlu ba fu ñaawlu yam daal parce que dëkk bi kenn ku ci nekk rek war nañ la protéger euh, ba kenn du tëb di la dóor daal vraiment policier bi daal li mu def man donc man dama ko ñaawlu quoi ñaawlu naa ko trop vraiment parce que loolu dafa war a jeex Sénégal daal. abus de pouvoir man li ma ci gis moo te des fois ma bëgg nekk sénégalais nekk sénégalais neex na mais abus de pouvoir day tax dootuma bëgg nekk benn yoon sénégalais bëgg changer nationalité ndax Sénégal dañuy jël alkaati yi teg leen ci kaw population bi trop trop trop alkaati boo ci mënti joteel ak lu mu mënti am coow topp na la ndax li mu wax la ñuy gëm wax na dëgg waxul dëgg moom la ñuy gëm. boo waxee ñu ne c'est un agent assermenté assermenté daf koy permettre comme ni ñu koy waxee fii rek bu demee li mu wax juré na ne que mooy wax li mu juré na que fenn yooyu bu demee li mu wax moom la ñuy gëm alors que yow leer na la ne moom leer na ne ko ne li mu wax du dëgg nan nga mën a def pour prouver du ko du dëgg nga filmer ko boo ko filmer ñu jël beneen loi dal ko sa kaw daal ne amoo droit filmer ko donc ñun population bi ñun nan lañ mën a def booy lu ndaw bu ñu boolee ak alkaati ñu am dëgg le problème. des fois ngay sentir sentiment d'impunité parce cas yi euh, les mesures idoines yi ci a autorités ñoo ci war a jël bon affaire donc je pense que su doon am ay sanctions am je pense que cas yu du fi donc bon, ko au dernier moment bon def nañ ko sanction 10 jours xaw pour man c'est pas suffisant parce que cas bi grave c'est extrêmement grave. image bi bu defee le tour du monde day yàq teru Sénégal et tout donc euh, war nañ ko xoolaat war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax policier lu euh, force de l'ordre bu jàkkaarloo un civil amul benn yoon bu mu amee droit dóor parce qu'il y a des sanctions yoo xamante lu ko mëna wax ak lu mëna a def amna leneen voies yu mëna jaar pour mëna ko faj mais pas ay boobu d'autant plus que li ma ci dégg mooy élève waa ci saaga ko dafa amul benn infraction mu def c' est juste il répondait aux questions yi ñu ko doon posé xaw ma nag ban musuma ko piqué mu ko donc je trouve pas en tout cas c' est pas du tout normal pour un pays comme le Sénégal xam nga ñu ngi tagg suñu mérite dañoo xool ba loolu partout dans le monde donc bu ñu gisee cas yi bon day remettre en cause euh, distinction boobu ñu joxoon donc euh, à l' avenir man j'interpelle les autorités étatiques pour que de pareille situation bu amatee ñu jël si les mesures idoines des sanctions yi nga xamante ni moo à la hauteur de l'acte bien sûr des sanctions à la hauteur de l'acte parce que lii moom vraiment c'est déplorable. vraiment comme affaire ak alkaati yu gars di wax ni boo man sax dafa ma choqué quoi parce que am benn jour comme benn gars mi ngi yor benn mooy police municipale yi xaw ma si la ko waaj a léegi waaj nagul tax nga jàpp mi ne ko bon dafa am ay papier yow manqué affaire yooyu mi ne ko mais rek may benn kii sax man ma dem fay quoi xam nga parce que du sax ngay téye sama scooter affaire yooyu noonu xam nga mu doon affaire bu doy waar quoi moo tax police dañu war a jël seen matukaay parce que tey yaa ngi dégg guerre ci police tey ñoo yor tey ñoo yor suñu maanaam suñu wàllum sécurité tey bu ñu dëggee tey si police bi yenn affaire yoo xamante ne doy na waar daal mu mel ni benn vidéo bu am si Ziguinchor gis nañ benn élément police mbaj benn waaj te loolu dafa nekk franc-galaterie loolu sañoo ko si def policier sax sañ ko def dëggu tubaab yi tey boo ko def dëggu tubaab am nga sérieux problème moo tax vraiment maa ngi lancé ministre eh, ministre intérieur maanaam maa ngi lancé état bi Aly Ngouille Ndiaye si boppam comme mooy mooy jiite police li si jël ay conséquences parce que lii dafa doy waar quoi doy waar parce que bu njëkk sax da nga doon gis police sax commencé am problème mais actuellement nii police seen liggéey doy na waar doy waar boo xamante ne dem nañ sax ba askan léegi dañ leen commencé ñeme te bu loolu amee rek kon dëkk boobu boo si ay mooy sa affaire doy waar après lay dem quoi vraiment man maa ngi lancé appel gouvernement ñu jël seen matukaay comme yi gis nii si wàllum police ñu bañ ko fi gisati parce que vraiment liggéey police nag liggéey noowul boo xamante ne tey bu ci boolee yenn yi rek xëy du mën a dem quoi man daal maa ngi lancé état bu gën a jàppale askan bi tamit parce que parce que mënoo wax sécurité te waxoo bi sa tey dëgg la quoi sécurité baax na baax na trop mais mu gën a dooleel police yenn problème yu am fa laa mën ko dégager moo gën quoi parce que day yàq suñu vraiment.